bon li ko waral foo naa ni xanaa ñi ko indi woon dindiwaat ko fi loolu lañ ko war a laaj mais ñun li ñu mun a wax rek mooy que ni lii du événement du événement parce que je crois que euh, ça cinquante deux cinquante trois jours yoo xam ne barrière yaa ngi fi euh, bi ñu xëyee tamit dañ ko fay gisoon avant ñuy indi président sax barricade woon nañ quarante huit heures soog ko fee indi bi mu ñëwee ba léegi tamit mi ngi fi. li taxoon nag président waxoon affaire barricade yi parce que dañ ko tegoon ci amuloon benn base juridique amul benn base légale donc il fallait que mu annoncé ko population bi li fi xew séquestration boobu wala nu ñu ko munti wooyee parce que loo xam ne loon tegul fen ndax amul benn base bi ñu ko fenn affaire doole la woon ak maa tey kon bu ñu xëyee gis mu deñ donc dañ naan ñun amul benn amul benn événement du événement parce que ñoom ñoo ko indi ñoom ñoo ko dindiwaat waaw ay négociation négo kuy négocier ñun fi mu ne nii dañoo nekk xalaatuñ sax moo boobu fi ne nii quoi mhm. parce que kii négocier xanaa da ngay libre parce que ku barricade na na ko ngay négocier kon kay négociation mun tam te affaire bi du affaire barage ndax loolu jaay doole la woon te jaay doole bi dafa continuer tey ba ci détenu politique yi kon affaire bi du problème mu ay Ousmane Sonko problème mu peuple bi la problème mu détenu politique yi problème mu candidature yi te loolu jàpp nañu soobee yàlla yonte bi lépp ah ñoom ñi ci dugal seen bopp dinañ ci génnee seen bopp jàmm na ñooy ko déggoo li ma la xam nga lii bett nit ki mooy liy événement lii c'est non événement parce que man mii ne la man xaw ma sax fi mu ne nii président ci lan la nekk wala fa mu nekk xam nga kooku kon tey mënul doon betteel ci moom man ndegam man mii dugg génn sax mënul doon betteel ci man parce que du événement donc asamalaak euh, moom kon daal li mun a wax daal pour tënk mooy que ne ñu jàpp ni bu waree communiquer dina communiquer ak ñëpp waxaat peuple bi ni barrière yi amoon ni teggeeku ñàkkul am na lu ñu ci xam dina di ko waxaat ñëpp muy benn man awma ci benn appréciation appréciation parce que du événement ko vraiment pour dire vrai du événement à part que boo ñëwee ñu ubbi sa oto fuyee nga dugg génnaat tey dangay ñëw rek circuler mais donc à part donc li ci des mooy bu président waree communiqué dina communiquer ak euh, nit ñi le moment venu buy euh, reprendre activité yi tamit dina joxe période bi lépp quoi non xam nga lii bon signe ak mauvais signe mooy que ni ñoom ñoo ko indi ñoo ko jëlaat xamuñu woon lan moo tax ñu indi ko parce que amul woon benn papier xamuñu tamit lan moo tax ñu dindi ko kon vraiment sentiment moom ku ko ci am bokk xanaa ñoom ñu wax la ko wala nga ñoom ñu xamal la ko mais ñun à notre niveau daal man daal daal je circule comme mën na ma par rapport dañuy gis patriote yu bëri ñu naan alhamdulilah du xam nga xam man dama jàpp ni dama jàpp ni patriote yi bu ñu wax alhamdulilah c'est parce que jàpp nañ du yàgg dinañ gis seen leader ndax namm nañ ko gëj nañ ko gis à part ci réseau yi muy benn ñaareel bi bu ñu naan alhamdulilah dañ jàpp ni tey ñoom seen énergie bi ñu yore par rapport ak activités yi ñu war a mëne léegi dinañ ànd ak seen leader di ko mënee ndoo ñoom contact permanent bi ak seen leader ci loolu la ñuy wax alhamdulilah mais du ci ay barrières yu ñu dindeeg ak yu ñu fi bàyyi parce que affaire bi comme ni ma wax rek du événement quoi